How about waaw incha allah incha allah. ajaratu ajaratu Ndeye Astou Diagne yaayu Mbaye Diagne euh, macha allah sunu yaay ju baax ji. Euh, bi nga xam ne wax dëgg nag euh, mu ngi taxaw Mbaye Diagne mu ngi koy jàppale mu ngi koy ñaanal ndax nag yor doom mu nekk ci football dafa metti maman ñu ngi lay nuyu di la ziar. ajaratu hmm. macha allah eh, tey nga dem Màkka eh, ziyaar ji yonent bi macha allah rabbi eh, lan nga yëg bi nga demee ca bërëb bu sell bi ba ñëwaat. foofu rek laa bëgg. Mhm. soo ko demee li may yëg man ak yàlla rek ko xam yonent bi rek laa bëgg. Màkka rek laa bëgg. Mhm. damay ma sañoon damay dem di dem di dem ba màgget. Mhm. ba yori bant. ah te dama ci am xel bu neex boo xamante ne. waa mbay yóbbu Màkka ba léegi mu xam ne loolu laa bëgg. mu ne ma nagam maa ngi nooy su ma ko jotee rek préparé mhm. loolu ku la ko wax dalal sa xel te xam ne dafa dama bëgg yonent bi mu xam dama koo bëgg mhm. mu dig ma loolu kon loolu sama xol da ciy sedd guy kon eh, ren mooy ñaata yoon nga dem euh, ziar yoon juróomi yoon juróomi yoon waaw lépp sa doom mbay defal la ko defal ma ko euh, nan nga gisee taxawaayam ci waajuram euh, bëgg ma lool mhm. macha allah gaaw ci man di sama xarit teg ci loolu rek kontaan naa ci moom daal loolu dama koo bàyyi yàlla di ko ñaanal wér yàlla lafal ko cat loolu rek laa koy ñaanal gudd ah. fan ak wér yàlla lafal ko cat nga gis mbay nu mu mel ak rakam yi mhm. eh, macha allah yàqu ci dara ñoom Anta mhm. ak ñoom Rama mhm. ah, mu taxawu leen soutenir leen ba ñoom sax mun na ñu wax ci ñoom eh, lan nga leen di gën a dénkaat ndax gis nañ jamono ji léegi mag ak rakk yi sax jubawatooñu loolu dama ci sant yàlla di ñaan yàlla lafal ma cat ci njaboot gi benn lañu benn lañu na jama rama alsaan ñun ñu benn lañu alsaan buy wax ak mbay sax danga naan nag fii moroomam lañu daf leen nangu lépp anta noonu ree rek la xam ak ñoom yal na yàlla dafa leen teg loolu leen sutura loolu rek laay ñaan masha allah kon ñu bàyyi la nga wàcc suuf ndax tàggkatu euh, taalibe Cheikh yaa suuf tàggkatu yonent yaa ngi ci suuf ah, maman dangaa sañse nag sa or nga def nag macha allah ah, lépp mbay la waaw ah. mbay la lépp mbay la macha allah jërëjëf da ko yokk jërëjëf waaw yaa mm-hmm. أبا ترى من الهام حسن الهوى تهله المعزايا مسد الفرع وظهوره المزايا حضرت وإمانا إله ومصابكم الرسل بدمره كما نبه مسد الفرع وظهوره المزايا

الكرام بيت سبيل أنا بحبي في المزار أهلي وخلي وإمامي فوصافك مرة سلم لكم فما بهم سبيل أهله بالمزايا فما نزلت ألف أمام أهل للمال فما ندم سلفا قال له من ما زال لنا من نسبل فأعلمهم بالمساء أتبين الحمد لله يسر الوجود إلى نحو المرب نور قد كان مأوى والله تكلم تكلم تكلم sunu maam yi sax mënuñu leen a tàgg. déedéet xamuñu sax suñuy maam. waaye Abdalaay Bacar Ilias Bacar. مجزيا أبدا محمدنا المختار نجد للذي مرة ضمها الأم آمنة

rek ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam boo ko dee takk boo ko dee takk man ko takk ci xaalaat man ci sa bu ko defee bu ko defee sama ndijaay Alioune Mbaye Alioune Mbaye bu Serigne Babacar Sy Sy moo ñëw moo ñëw di jox ndokkeelu jigéenam jigéenam moom sëñ boobu dina faat man maa la ko wax te dëgg la nga baal ma àq sax ci guddal bi dégg ndax ci guddee bi ma guddee ñëw ndax boo ziyaar jee yonent bi mbay jaañ sama doom wax ma ko su ma ñëwul du nekk lu rafet loolu rek a wax lool sama tànk yi waaye nag nga baax lool kenn mënul jox kenn lu mu amul kenn ku ci nekk sa ndékki sa añ sa reer yaa mën a làmbal sa bopp sa poche waaye kiy jël lu baax di la dolli danga koy ñaanal yàlla dëgg la te moom moom day as loo dal sa rakk yaa ngi nga bokk ñoom day ak bàyyi sa mag yaa ngi nga bokk ak ñoom day ak bàyyi mbay jaaj ba mu lay dafa ni sam papa Tafa ak sama yaay laay boole ñu dem Màkka feebar moo tax àndul ak yow kon man xam naa lépp soo ma masaan romb HLM ba boot xale yi téye xale yi dama naan la muñal lépp dana baax yàgg naa laa wax loolu te nag li la yàlla jox fa tabaarakallaahu yaa ngi koy bokk say mbokk wax dëgg yàlla yàlla na yàlla xet doole amiin sa kaala gi ay kaalay kaala gi ñëw xanaa kay yaay dem ba nga man bëggatumaa dem te xam naa ne li nga yéene sa bopp moom nga yéene ñi nga bokkal may may moom nga yéene sa mag yi de sa yaay jaa ngi toog fa tabaarakallaahu yàlla na ko fa yàlla gën a bàyyi amiin xam nga cat kan toog ku am di ko lekk moom doom dëgg la te tasaaraw ko kooku cat dana ko topp ba dugg ko ba laxasu ko barke Serigne Babacar Sy ah. man kii laa gëm ah mi ngi may teral ku daan tëgg sabar ba léegi fa nga daan tëggee sabar nga fay tantal yam càlla Muhammad ah, ah, waaye dama ne Babacar Sy participé na ci lool waaw yaa ngi ci jàmm xam naa ni tey kontaan nga ndax uh, yóbbu sa yaay mu dem màkk loolu doom yëpp moom lañ bëgg rawatina nag témoignage yi nga xam ne uh, ngi koy def tey ban sentiment ngay ngi ñëpp mm-hmm. ñu Sénégal yëpp sant nag yàgg na mère moom dañuy waxaat yàgg na dem yàlla ñu may ñu xewal ñu koy yóbbu bi mooy première fois nag mu fekk ma fi Sénégal quoi. experts yëpp day fekk ma nekk fële. ñu ne woon nañ ko nañ bokk bànneex rek woo famille bi xam nga. parce que loolu kese tey gis nañ non seulement témoignage yi sa yaay yëkkati mais toute ta famille aussi uh, ñu yëkkati les mêmes témoignages te li ci ëpp mooy mbay yëgul boppam uh, mbay bëgg na ay mbokkam mbay jàppale na ay mbokkam mbay jàppale na ay xaritam Euh, ci éducation bi la wala da nga fekk famille bi nga gis taxawaay bi nga mën a topp leen ci ni ñuy doxee. waaw ku nekk si li nga juddoo rek loolu ngay xam te comme man si loolu laa juddoo comme la HLM laa màggee ñu fi nekk nii famille bi la ñu nekkoon nombre vraiment kon loolu laa xam ko moo tax euh, lii daf may neex parfois. Mm-hmm. ñu woon fii ñu loolu la ñu am. Mm-hmm. la daal. maman dafa mel ni euh, sànq yëkkati nga kàddu am solo euh, ci euh, naam Mbaye Diagne nekk fa woon waaye ñaanal li nga ko ñaanal rawatina bi nga demee màkk gis nañ fan yee mu def ab sorti di wanewaat cofeel bi mu am ci biir Sénégal naam yàlla mu ngi koy teral bokk na si ñaan yi nga ñaan bi nga demee màkk bokk na ci mhm. bokk na bu baax mhm. Mbaye moo ma ñaanal boppam ndax doom bu bëggee ndeyam sagal ndeyam bëgg lu neex ndeyam mu di ci daw surtout sama famille samay xarit kooku moo ñaanal boppam dama koy ñaanal yàlla rek yàlla ko ko cat dolli ko sutura wéral ma ay cëram loolu laa koy ñaanal gudd fan ak wér. macha allah macha allah Mbaye euh, sa moom léegi dafa wax lu am solo maanaam lépp lu doom di defal waajuram defal nga ko te li ñu gën a bëgg ci àdduna muy or ak dem Màkka ci loolu nga koy taxawoo. ba pare mu teg ne bi mu demee mag li mu njëkk ñaan mooy Mbaye ndax dafa bëgg Sénégal bu dee am rek Mbaye am na ba doy te yàlla may na ko mais su soñoon Mbaye ñëw ci équipe nationale bëggal doomu Sénégal. mais wala wax. dañ moom bëgg-bëggam la wax. dëgg la mais xam naa ñun bi ñu demee jiw national comme ni ñu koy rek. gis naa ne moom daa am mbégte comme du seetaan match yi sax nag. du ko mën du waaw. kon ñu ñaan bëri na ko yàlla nangu rek. waaw bu ko dee yàlla na def mu doon lu gën si man quoi. mais comme lu ñu gën a am important mooy moom. dañuy am jàmm am wér gu yaram. na def mu doon lu gën si man quoi. mais comme lu ñu gën a am important mooy moom. dañuy am jàmm am wér gu yaram. waaw te mën a continuer suñu liggéey. di ko mën a cot arrêt di koy mën di ko mën a yóbbu fi nga xam foofu la bëgg moom boobu laay dem ay Europe mosuma seet fu may dugal ma waxee mu ne moom préparé man naa daw di di daanok yooyu yëpp loolu la waaw Sénégal neex mu naqar yi fii lañ nekk yàlla def na ko ko rek waa xam nga ñaan yàlla rek yàlla def jàmm mm-hmm. def li gën si ñun waaw waaw seetlu bi benn ñëpp dañ ko gisandoo ci yow maanaam jour yi ñu amee vacances dañuy dem Amérique dem beneen dëkk mais yow tu préfères nga ñëw Sénégal nekk ak waa HLM nekk waa Sénégal di foog ñoom di reer loo xam ne la philosophie ngay doxee. waaw waaw man comme loolu laa xam loolu laa miin quoi parce que man li ma yàlla bindee loolu laa xam su ma demee États-Unis wala ma dem Espagne ma mujj dem damay xaw a tëju quoi damay fermé wu. moo ko mën a yàgg su ma ko demee juróomi fan du ma mën di foofu ku ne li nga tàmm rek. te nag doo nekk Europe di fa nekk di liggéey dix mois fa vacances jot nga war a dem Sénégal di dem beneen dëkk man moom mënuma ko quoi te man fii laa gën a en sécurité fii laa gën amee jàmm fii la suma yaay nekk sumay mag xam nga fii la suma lépp ne moo tax su jeexee damay ñëw fii waaw mm. kon loolu moom yàgg na quoi mm. voilà Mm-hmm. alors Mbaye sa dernière sortie bi nga def ban retour nga ci am euh, ndax gis nañ Sadio Mané euh, ngeen defandoo ay vidéo ay ay photo euh, ban retour nga ci am. comme maanaam. sa dernière sortie bi nga defoon di wax ni sa bëgg-bëgg moom mooy jouer équipe nationale. Ah. ban nga ci am ci say moromu joueur. non loolu dañuy wax ne ñun bu ñu ko waxee rek parce que. ñu mm. nekk suñu ginnaaw moo tax. ndeysaan waaw ñun bu ñu ko waxee parce que ñun comme ni wax yàlla mu ñuy tere ñu sant yàlla bu baax. Mm. fii football moom. da nga bëgg am teral say waajur yàlla mu ñu koy defal ñuy sant yàlla bu baax ñu gën a gën a yokk ñu ñaan yàlla mais affaire yi national boo gisee comme ni ngay wax rek xarit yi am ci jàmm yi yi bëgg loolu waaw ñu ne bëgg nañu ko parce que normal fii la ñuy dëkk pourquoi pas kon moo tax man bëgguma sax di si delluwaat parce que mhm. loolu moom mi ngi à côté man le plus important mooy naay liggéey di nekk fi moo nekk quoi. waaw li ñu mën ci am ñëw di ko bokk ak jaamu Sénégal fii fi nga fii la ñu fii la lépp commencé ko sa liggéey football la yàlla may na la ci lu nekk macha te yàlla gën a yokk performance nga def ñii ci parmi les meilleurs attaquants Sénégal yi lan nga des ak sa xol loo xam ne tey jii buñ la ko laajoon loolu ngay wax. waaw sant rek Sénégalais moom amul seen fay parce que comme ni nga wax rek boo génnee dafay ay ñoo xamante ne. ñu ngi lay bëggee di kontaan si performance yi ñuy def chaque fois di wax ne yow laay topp yow laay topp xam nga ay booy yoo xamante ne vraiment tey xëy na ñii ma ñoo ma mag ñii ma leen mag nga mm-hmm. mais comme moo gën a am importance